sëñ Bamba moo ko sanc te kenn ku nekk ci ñun am nga dëkkub maam da nga koo gàddaay dikk fii parce que yéen liggéeyal ba jeexal ci sa dund li ñuy wax ci grand place yi dara lu wér amu ci tey nag am na benn baaraam bu ñuy wax baaraamu déy ak baaraamu sànni Cheikh Abdoulaye Mbacke wax na ma ne ma dëgg ak seen ñaari baaraam yi ñoo ñoo ñoo mooy seen frontière da ngay fab sa baaraamu déy teg ko ci sa nopp fab sa baaraamu sànni teg ko ci sa bët te xam ne lu àdduna yàgg-yàgg aw fen da koy dégg te xam ne lu àddina yàgg yàgg dëgg da nga teg sa bit ba sa bët koo xam ne kii am nga compétence bu tarxiya bisa ngi nii daaraa ngi nii gaañaa ngi nii wër ma lii mooy is bu tarxiya loo ci nattable dana la wóor tey suñ la nee is bu tarxiya sëñ Saliou génn na leen Touba ku ne xam na ne téesante weesu nañ ko ndax ab soldaar boo xam ne du wàcc guddi du wàcc bëccëg du téesante waaye yéen nit ñi ngir ñu bañ a tayal ci liggéey sëñ Tuubaa daan ko def suñu nit la ñuy waxal kenn du dajale mbooloo te waxoo leen lu jëm ci sëriñ bi mënut a nekk lu wér lañ leen di wax ku fi dikk tey soo fi nampaalee loo xam ne lii yow te la jur jur yow na nga xam ne ku lay gàllankoor ngir nga mañ ak si fii loolu dong la ci jublu fii dañuy yete bopp la ñuy xar tey dugal ci lu leer nañ doo doo gis lu dul sëñ Bamba looloo fi am kon balaa may tàmbali dugg ci wax woowu sax di ci sori nan dikk ci kenn ku nekk ci nun xasida gi nga mokkal wala xasida gi nga taawu ci sa loxo walla boo mokkalut taawu woo xasida ñu maata nun ñëpp teewlu foo waaye toog du jar muy wëlbatiku fépp penku la ci sëñ Tuubaa lépp nga jublu ci jumaay ji fii fépp jàkk la pepp suuf wu ne kër la ci Tuubaa gii nan teewlu nu jàng xasida te wax ak sëñ Tuubaa ne ko ndam lii mu am ci tubaab bi te nun nuy maanaam mandarga yi barab bii nu toog tey kenn ku ne xasida gi ngay jàng leen jublu mooy luy niroog luy métti wala luy niroog luy gàllankooru wéradig yaram ak lu mu lu doon lu ne na tàggoog sëñ Saliou Mbacke ba faw ndax ak nekkam fi baax na ci nun ak nekkam fi baax na ci nun wóor nañu ne duñu hypothéqué mukk ci àdduna bu doon banque ñu wóor na duñu fa hypothéqué ngir njariñal boppam kon nam ko ñaanal mu yàgg fi na wér nu yàgg fekk moom te nun xam ngeen ne dellu gannaaw sëñ Bamba rek la ñu gëm te lu taxaw ci suñu kanam suñu diggante sëñ seen ndodd mi la ñuy jaar koo mën a doon gëmuñu luy dem aras di ñëw xamuñu loolu sëñ Bamba sëñ Tuubaa def na ci lu kenn dul def gëmuñu borom wilaaya gu rëy li ñu xam mooy sëñ Bamba def na ci lu ko gën suñu wilaaya ak suñu xam-xam ak suñu kàttan ak suñu man-man lépp tënk nañ ko ci benn baat muy liggéeyal Seexul Xadim ku bëgg yóbbu suñ fit wan ñu ko ci liggéeyal sëñ Tuubaa soo dawee jiitu ñaari mètre am nga liggéey bu ñu amatee jàmm dañoo làng baa ñu romb la koo mën a doon te bu ñu la rawee yàqu nga dootoo dabe jeexal nga kon na ñëpp def noonu kenn ku ne xasida gi mu téye wala li mu mokkal wala su mokkalul te téyewul xasida nay wax rek teewlu sëñ Tuubaa di ñaan sëriñ bi ànd fekk ñun di liggéey jiitu ni borom fukki at ak ñeent nuy dem ba faw fana yont yàlla nooyin wa de na leen wóor ni yàlla jox ko joxoon mi ngi fi jógu fi te nun ñi nax nu xiyaalu wal xiyaalu ashdaru bi an yu xassasa bi xayri yanduru sunu borom buy nangul kenn gën nu cee ndax ay ñoñom lañ ndax sëñ Tuubaa lañ yaakaar kon nan tàmbali liggéey boobu لنبيهم يستخون قائلنا مع جبرائيل مكتب يستخدمون في بيت ونبيهم قد مدى وقال الله يزمون يستبصرون بنعمة من الله وفضل أن الله على يد من الذين يعملون قيل بهم ولن جاء لسان وسلم عبد الله قيل باخي ينبغي بعد ما يجمع الناس xasida gi nga xam ni dendoon naa ak yow te nga jàng ko wala nga mokkal ko mu nekk ci sab dënn wala ñaar yooyu jekkuwoo ko nga mën a ñaan yàlla sunu borom ci barkeb sëñ tubaa ak darajey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sëñ Saliou Mbacke wér te yàgg fi seereel leen ni fii tey ñoo ko jaayante te ci pénc lañ ko wax nanu ñaan ñoo ngi ñaan yàlla mu suturaal nu sagal nu ba benn yoon benn gàllankoor bu xeet ak yii buñ ko déggati ci suñ sëriñ bi yaakaar naan dinañu ko defal ndax waxoon naa ko fii nax nu xiyaalu wal xiyaalu ajdaru bi an yu xasasa bi xayri yanduru kon nu dugg ci wi li nga xam ne moom laa tàmbalee woon di ko wax mooy ñun ñii dafa am lu boole te bu fekkoon danoo bokk nun ñëpp nekk ci benn barab dëkk tuubaa sunu waxtaan mën naa bañ a jëm ci nii may bëgg a waxee su fekkoon danoo bokk nekk Dakar sunu waxtaan mën naa bañ a jëm ci nii may waxee waaye yàlla dafa dogal am ñu nekk ci mbooloo mi nekk fii fi tuubaa am ñu bokk ci mbooloo mi nekk ca sow am ñu nekk ci mbooloo mi nekk ci gox yi ci réew mi yëpp di Kolda di tàmba di Kébémer di fu mu fi mën a doon ci biir réew mi ah mu am ñoo xam nag nit ña ba ci bitim réew mu mel ni léeg-léeg téesante moom ku ne xam na ne ku way du ko def weesu nañ ko it liggéeyu sëñ Tuubaa it mayuñu ko waaye dafa am loo xam ni su da suñu dabee ñett dab nanu tëx nanu luu nanu gumba nanu maanaam kon bépp kaddu wala bépp tuuma boo xam ne yëkkati na ko di ko sànn ci suñu der na ko wóor ni kat tontuwun ko benn ñaareel bayit na ko wóor ni kat waaxuwunu ba ci kenn ñu di ko ko boole kon na ñi ñiy wax ñëpp na seen xel dal ci ne weesale nañ sëñ yu Mbàkke fu ñuy dema fa moom naa ko déngal na di wax wala déngal li ñuy wax ci ñun kooku tekkam ji luy dox fii ba arasa course yu xam na ko xam na koo xam ne kii da ngaa takk ba faw te dootoo te te te dootoo defaru xam na koo xam ne yaa ngi ci njabootu sëñ Tuubaa ca ësal ba bisub tey bi kon kooko yegg fi moom di ko leeral lu mu war a xam muy tukkee ci ñun jomb nañ ko waaye nag nun tey suñu biir nag war na noo waxtaan nag dëgg dëgg dëgg lu xattal nit ñi bokk ñenn ñi ba nga xam ni dafa mel ni li ñuy def teyatuñ ko ba àgg ci di wax ni Sëriñ Saaliwu sax de yeewu na étudiant